kàddu yu doon kumpa dang ball gilli ubale bawoo ci réewu kumba bang sunu rap sunu tuur mystique ni sunu tur ñuul ni funu tuur sunu daa sunu tuur jot rab ci suufu pam bi soppaliku calweer ngelaw xelaw génnee mu leen mus dencal benn ñaar ba fanweer simili waxtu fanweer wéri at àpp mat ngeen génne saraxu dex gi salaamaaleykum ladies and gentlemen salaamaaleykum hip hop Saint-Louis salaamaaleykum tey dañ ñëwoon nag yéen seen première émission Dekkil rab Dekkil Rap boo ko jegee émission bi am ci web bi la Saint-Louis TV chaque 15 jours tey dañ ñëwoon Pikine seet si waa ñuul kukk war a waxtaan ak ñoom ci point yu bëri euh, baaga ngi nii euh, index Fandène euh, ñun nekk group yàgg fii à Saint-Louis ñëpp xam ko ci côté national ak international euh, tey jii dañ ñëwoon pour laaj leen premier point bi groupe bi ci lan la jógee ak si yan ñenn nit ñoom ñoo ko sos quoi yeah yeah yeah Dias maa ngi lay maa ngi lay di la siyaar bu wér ak sa équipe bi nga àndal yëpp di la wax welcome donc ñu ngi ko euh, tur noo la bi nga xamante ne bi nii noo la bu bu bu bu doy lu bare quoi et aussi euh, ba ñuy ba ñuy ba ñuy bi man franchement parler man daf ma defoon ay réew quoi franchement parler alors du souvent dañ discuter lu bare am na lu tuub lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg nangoon ko génnee parce man maa si doon inquiété bare bare bare bare yoon ko et aussi euh, euh, kon demee ba nga xamante ne bii nii man bon instant mi toll nii aussi bon dem naa ba nga xamante ne bii ah, affaire bi maam jot na ba jot na li nga xamante ne bii maam il est temps que nu bi génn.

moo tax ñu ko lii ak lii ak mais déggoon naa avant ñu kuku jihaad la tuddoon euh, léegi mën nga ñu wax euh, fi ngeen jóge jihaad bu ñëw suñu la moo ko waraloon quoi la moo tax ngeen changé nom ak ba xam yan même personne ñoom ñoo fa nekkoon bi euh, ngeen nekkee jihaad ak ñuul kuk. ok même personne ñoo nekkoon ci jihaad parce que jihaad bu fekkee bañ donc avant man la woon ak tandem ak coach ak benn benn système bu ñuy wax kumbis kumbis après la al rejoindre groupe bi. donc ñuy liggéeyandoo liggéey bu rafet liggéey bi nga xamante ne nii franchement bi nga xamante ne am envie pour changer suñu turu groupe donc ñu am ñoo créé ñu parce que ñun ñoo am envie bi def rap donc ni lépp lu ñuy def day fekk mu nekk en l'aise donc ñu am envie changer groupe bi ñun waaw ñu koy changer après ñu changer ko donc ñu ngi ciy évoluer ñu ngi ci yàlla mi ngi quoi. ok ko. waaw

donc ñun suñu objectif moom mooy fexe ba tey jii ku ñu seetaan xam ni ñii kat Africa luñ jógee euh, euh, euh, ñii kat ku leen xool xam ñu ngi représente ñu ngi représente Africa quoi donc loolu fa la fa la fa la fa la fa la tur bi jógee ñu ngi ko sax ni fii bleu noir fa noir donc c'est ça donc la yem xanaa loolu moom moo tax ngeen yéen ñëpp nga ngeen yor tey noir wala <laughs> coïncidence wala nu mu demee noonu non parce que voilà quoi man ñun moom tur moom naan tur day wuy borom tur day wuy borom tey bu la tuddee Demba wala Paate donc waaw da ngay ressembler Demba ak Paate quoi

ñu koy bund di ko fi l'homme noir est constamment humilié est constamment insulté sa dignité est constamment bafouée donc il euh, y a des intellectuels qui se battent contre ça y a ay personnalités politiques comme Mandela comme Sankara qui ils se sont levés pour euh, la dignité de l'Afrique donc ñun rappelons-nous, c'est le message de ces grands hommes là nous avons nous bëggoon continuer on a réfléchi euh, pourquoi pas continuer le combat de la négritude en quelque sorte donc nous avons ñu jëlaat nous bi xam wolof représenter si kaw donc euh, bu raglu comme les suite parce que euh, nous nous justement, justement on l'a toujours dit dans yi album du Faut dem guerre faut dem yaa ngi gis ay euh, ay ay voilà ay actes yu doy waar quoi mais en ce qui nous concerne ñun en tant que africain en tant que ay nit ñu euh amuñu jamm fenn amuñu jamm fenn fépp fu africain dem ñu ngi koy maltraité donc euh, am conscience ci lool rek en tant que africain yow nga xam ni sa couleur sa couleur der rek ben instant handicap la fo waroon amé liggéey ñu bund xatal la euh, def discrimination parce que nit ku ñuul foo waroon amé respect ñu toroxal la fa ba fu say droit parce que da ngay ñuul on vit constamment le racisme et le mépris donc bu ñu génnee raglu euh, c'est une autre manière de dire que ni euh, li ñuy dund ñun mo raglu quoi donc motax man la raglu suite ñu kooku rek la quoi. Euh, bon ñu gis ni ñun kuku kenn mosul leen dégg ci ay clash ñom sen sound yop ci africanité la euh ba ci ñom sen côté habillement sax bu ñu yëg ci kaw sen africanité bi la ñuy dund euh, lan moo waral loolu noonu ñu aussi tamit gis nañ ni seen studio bi ngeen tuddee ko Cheikh Anta Diop aussi euh, lan ngeen koy dundee africanité bi bon comme ni ko index waxee léegi donc ci continuité bi rek lañ nekkoon parce que c'est un combat boo xam ni euh, dañu pare woon pour def ko donc aduna noonu la demee yawee am na ay révolutionnaires yu nekkoon yoo xam ne am na lu ñu doon xeex pour Africa boo tuddee Cheikh Anta wala wala Sankara wala wala ñeneen donc ñun ci ci lancé boobu donc lañu lañu lañu lañu ak suñu hip ak suñu rap que loolu ñun continuité boobu ñun dañ ko war a def pour beneen génération bi ñëw aussi def ko donc en tant que ñun kooku pour ñun bu ñuy dox pas bu ñu dox war a ci loolu noonu donc moo tax booy déglu suñu suñu ay sound di nga ci déglu lu bëri ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy wax ci loolu dañuy wax ci Africa mais dañuy wax ci aussi fait société yu yu gën a jóge suñu suñu suñu biir société yooyu yëpp dañ ci dañ ci donc ci ci ci solu beet donc noonu la demee mënuñu tudd ñun kooku aussi di di di soloo na neen quoi donc loolu lépp dañ ko bàyyi xel parce que peut-être bëgg def benn groupe boo xam ni exemple lay doon pour ci képp koo xam ne da ngay def musique voilà noonu la demee. Euh, ñu gis ni groupe bi euh, voyagé ngeen dem ngeen këpp na ngeen gisee rab bi ngeen bàyyi woon fii bi ngeen di jugee fii Sénégal ak bi ngeen demee rab bi ngeen fekk foofu. bon personnellement day day jafé nga nga de nga gënal rap bi ak rap quoi parce que aussi ku ci né ak concept bi ngay bi ngay développé si si sa musique donc ñun par rapport ak ñun rap bi ndon def fi mom lañ doon moom la def fi ñu donc amul amul lu ci changé donc peut-être fek fek nañ fa yenen façon rap wala comme comme ni fi ñeneen di ñëwee fek fi benen façon rap mais du bu ñuy même bu ñuy influencer peut-être li positif ci lool la ñuy jël booleeg suñu boss donc ñun ñun noonu la aussi mouvement buy dox quoi Nous si ne di nga am noo ko ku si ne dina am donc mais en tant que ñuy donc loolu dafa teel a pour ñun suñu rab la ñuy def d' abord lépp lu ñëw ci suñu rek mais du changer suñu donc loolu la quoi. Euh, Bac euh, ñu ni ñun dafa groupe buy dund nekkoon groupe buy demee vitesse bu bëri euh, amul manifestation bu à Saint-Louis te ñu ñëwul euh, partout Sénégal nous tok ba si yàgg euh gisatul ñu tukki ci scène bi lan moo waral euh, changement boobu. Eh, dëgg la waaye dëgg la parce que euh, ñun bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu gënee suñu album c'est en 2015 quoi ñu gënee suñu album ñu def bon parce que tout du Sénégal quoi. bon def fait fépp def promotion album bu dem Dakar basé wu Dakar def promo bi def pas mal de rajo ici def pas mal pas mal de télé télé télé quoi émission télé. donc def suñ def promo promotion album bi donc mais album album mënoo continuer def promotion album en long terme quoi donc ñun am na fu ñu xam fan la ñu mënoon yem donc defoon ko après bi ñu jógee si loolu ñu ñu ñibbi si ñëw ndax ba ñu ñëwee après ñu gën a focaliser wu parce que ñu opté woon ni bu ñu bu ñu génnee album benn temps dañuy dañuy dañuy dañuy def benn stand by pour pour gën a travailler si côté projet yi en même temps jéem a gën a renforcer suñu capacité quoi. mais mais aussi tamit euh, absence index tamit yaakaarul ni jurul jurul problème. waaw euh, mooy li may wax rek du problème parce que problème moom mooy euh, comme si bu fekkoon man a gaay la dañu xuloo ku nekk jaar sa côté mais au contraire gars yi ñoo ma poñe ni ma yow concours bi nga réussir nii kaw jarul ngay hésiter demal nga def ko bu leen neexoon ñoom ñu gisee ni sa waay dafa dafa dafa trahir wala fa demee non mais ñom boy xol ñoo yombal parce que aussi euh, ñu projet de vie la yaa may dégg euh, yaa ngi wax légui le fait que ñu absenté ci scène bi est-ce que est-ce que du indi est-ce que du ray groupe bi ça dépend si lan moo tax ñuy rap euh, xëy na am na ñoo xam dañuy def rap pour nekk di def ce qu'ils appellent le buzz constamment ñun on fait du rap par amour avant tout en fait mbëggeel moo tax ñu koy def mais ku si nekk si ñun nga am vie à côté dana am ay famille ay responsable de famille lañu donc si sa biir dund par moment dina am priorité boo xamante ni moom nga war a favoriser bàyyi beneen bi aussi bu ñuy xool ndar entre nous concrètement qu'est-ce qu'on a privé ici encore. mais instant yi nii moom am leen lu ngeen privé ndar euh, même même ci côté zone nord bi mais aussi tamit da ngeen di représenter yéen Saint-Louis ci côté hip hop ngeen yaakaar ni aussi tamit euh, wàcc bi ngeen wàcc aussi tamit du wàccee rap Saint-Louis bi. vraiment mooy li ma la wax du wàcc euh, gis nga euh, au contraire nga nekk si kaw podium ay andi ati at toujours ngay wax la même chose di ko waxee de la même manière et tu t'adresses au même public loolu mooy wàcce sa valeur parole à un moment donné on a voulu porter le flambeau beaucoup plus loin flambeau hip hop Saint-Louis mais. euh, concrètement rek pour mu bañ nek ay rêve quoi concrètement dem Dakar représenté du Saint-Louis dafa laaj louer fa chambre dafa laaj am xaliss dafa laaj yeewu jox sa bopp ndékki dafa laaj tej sa atelier ndax dafa laaj lu bari loolu lepp kon xaliss akoy def donc il fallait que ñu def standby by pour wuti xaliss boobu pour mëna a yeggali mission bi. Euh, léegi ñu gis ni tandem Ndioull euh, Coucou dese euh, bon mënoon wax ni festival lañ fi à Saint-Louis. Euh, lan ci mën wax quoi ci festival euh, bi ngeen di chaque année. festival ngi ci même objectif mu déparé woon mooy festival boo xam ne gis donc là ngi ci jëm ci depuis le début objectif festival festival dox lu kanam hip hop ko avancement et ñi yàgg topp festival chaque année ña am na benn yokkute buñ ci gis bo xamni ma ngi am donc euh, pour man donc ñoo ngi ci même lancer bobu aussi quoi franchement. euh Bac euh, ñu dugg ci côté projet yi euh ñun ko ko yan projet la am. waaw bon pour l'instant ñu ngi si ay ñu ngi mëna ay ay ay projet donc ça am toll nii récemment amna projet bu nu bu nu bu nu doon def. euh ça fait depuis depuis depuis depuis 2015 à commencé à projet donc jusqu'à présent projet donc euh, euh, donner la voix sans voix donc souvent projet si nous

en fait euh, comme nous ko dit di donner la voix aux sans voix xam nga yu nous sommes la voix des sans voix donc à un moment donné on s'est dit que ni waxal nit ki neex trop mais micro nous si mu waxal dina donc pour jox la historique euh, projet bi ñun dañu tukki nous euh, ñu gis nous, dañuy wax dañuy éducation populaire c'est quoi l'éducation populaire mooy nga jël nit ki. sukkandiku si moom li ko yàlla mën loo mën na nekk lu ne nag mën na nekk kii dafa aay si bale mbedd kii dafa aay si nodd kii dafa aay si leneen maanaam koo gis nit koo gis am na compétence donc idée bi moom moo doon sukkandiku si compétence yooyu noonu mobiliser nit ñi dëkk si benn gox euh, jàngat ak ñoom lan moo leen ñor muy seen problème après ñu xalaat aussi ñoom ñu si indee saafara paa ñun. Euh, ñu gis ni àndoon nañ dem magam euh, ngeen def fa benn prestation bu doy waar man jour boobu sax euh, ki mu àndaloon dama koy wax ne ñu ñun ko prestation yu mës a def yëpp bii moom ci gën a neex secret boobu noonu la moo ko waraloon ak avec sans index. bon loolu loolu man looy wax souvent la ñu ko famille la tey jii bu doon tànn dem kase kase kase kase day day day day maam day représente quoi aussi bu dee index kase kase parce que ñun liggéey nañ loolu avant quoi liggéey nañ loolu avant parce que groupe la mais groupe la bi nga xamante ni maam dañu dañu dañu liggéey si côté si côté eh, individuel si aussi ku si nekk ku si nekk am nga am nga benn capacité bi ne si yow donc index si nekk yaa ngi dégg ñu ko bu ñu ñëwee def seen da ngay maam da ngay naan maam da ngay da ngay gis benn affaire bu affaire bu yéeme index si ñëw nga gis benn affaire bu gën a yéeme loolu donc tey jii nga gis index ak ak ak gis beneen affaire bu doy waar donc ñun ko ko ñun yàgg liggéey ci côté boobu noonu ba nga xamante ne bii tey jii fu ñu mënti dem si àdduna bi dañuy dañuy waaw dañuy def li nga xamante moo nes min parce que naturellement la quoi amul gis ni naturellement lay ñëwee euh, ñun ko ku nekkoon benn group fii à Saint-Louis euh, ñëpp reconnaître leen nekk groupe bu mag euh, à dimension international fépp dem nañ ko ci àdduna bi représenté lii di hip hop Saint-Louis seen kàddu bu mujj waaw kàddu gu mujj di leen jaajëfal yéen d' abord parce que déplacement bi ngeen def rafet na xam ni am na benn groupe bu fi ne boobu boo xam ni ma ngi def benn liggéey bu rafet ngeen ñëw set ci ko donc loolu yéen dal leen ci sant d' abord di leen di leen gërëm aussi di di wax gars yi nga xam ni yëpp ñoo ngi béggee ñun ko bu nu bàyyi nañu jàpp parce que ñun amul bàyyi quoi ñoo ngi ci biir ñoo ngi ñoo ngi ñëw jaman index waaw ñu xaar deuxième album rek comme def dimension internationale la nationale. franchement ñun on se pose même pas la question day li ñëw li ma la wax sax moy délu ci rek on fait du rap avant tout pour nous-mêmes buñu bindé bindee je te jure ben question la ñu poser est-ce que neex nañu ba paré c'est la seule condition bu ñu neexee rek dafay international parce que l'art est universel d'accord bu ñu bind raglu si néeg bi fi lañ ko bindé Pikine buñ ko France tuba bi dégg lu ñu doon wax dañ doon tu vois ce que je veux dire donc deuxième album bi nak gaay xaar. Euh, dañu lancé défi nag nee na nu dootuñu bindati lu gën a kawe raglu dootuñu def album bu gën a kawe raglu ñun ñu ni leen bu ñu génnee deuxième album bi gars dina dinañu ñun dal leen yàpp parce que raglu raglu binduñu woon dara voilà défi bi loolu la quoi. Euh, Bak dañu waaw waaw di leen di leen jaajëfal di di di di di ngi ci ñu ngi ci deuxième album nekk dana nekk li nekk dana nekk dana nekk benn affaire bu bu bu di leen jaajëfal di leen di leen waaw di leen di leen jaajëfal émission bi naat na émission bu bees la euh, télé bu bees la te aussi ñaan ñaan ñaan ñaan nañu yàlla télé bi am fa yegg fi nga xamante yeneen télé yu mag yi fii jaay yeeg ay ay ay TFM ay ay ay waaw donc ñoo leen souhaité loolu quoi di leen jaajëfal baax a baax a baax. Euh, donc bon ñu ngi jaajëfal gars yi nekk ci yëpp di jaajëfal Index Tandem euh, ak BAC euh, même coach aussi tamit ñu ngi koy jëfal lu bëri.